waaye eh, bi yàlla na namee humanité taxaw waaw lu tax njëkkewul sàkk awa génn ci aadama est-ce que mos ngeen posé wu question boobu yàlla bir na ko ne góor ci biir ci jigéen lay jaar pour génn pour gane si àdduna yàlla xam na loolu jigéen ñi dañ koy faral di wax ji euh, jigéen mooy magasinu yàlla mm-hmm. ak ah, n'est-ce waaw comme moom mooy magasin bi pourquoi yàlla sàkkul awa génn ci aadama est-ce que mos ngeen posé wu question boobu mm-hmm. ah ah dëgg la mos nga posé wu question boobu. non non dëgg la. dëgg la mos tu tu t'es jamais posé cette question. pourquoi yàlla njëkk a génn euh, njëkk a sàkk aw aadama euh, génn ci xawaa. Mm-hmm. et pourtant xawaa mooy mooy mooy mooy mooy mooy ëmb. mooy ëmb góor. dëgg la kon doon na gën a yomb. Mm-hmm. mu sàkk awaa mu ëmb góor. effectivement wala mu génne ko ci pourquoi Dieu ne l'a pas fait. très bonne question. xam ah, nga ah. ah jigéen ñi est-ce que ñu ngi posé wu question boobu. non mais yàlla dafa sàkk góor. waaw. muy mu jooy ne dafa wéet. yàlla ko jigéen mu wéet. waaw moom laa wax waaw déggoo ma de. moom lay wax nii déggoo ma de. Ah, donc nag saa ñun mënoon nañ dem dama ne dama ne non non non kon déggoo ma dama ne pourquoi njëkkul sàkk Hawa ba awaare dafa weet mu doo a sàkk góor. jël góor jaay ko dogalam la gën a yomb ah ko ay dogalam la góor daa yàgg ñaxtu rek bi ñu ko tegee ñeenti bi bi ñu tegee bi ñu ko tegee jigéen ñeenti jëkkër rek déjà moom dafa dee non non yegg non non non non yegguma ci teg non non yeggul foofu yegguma ci teg teg teg yegguma boobu dama ne ñaxtu dafa am fu ma jëm dafa am fu ma jëm ñoo ngi lay déglu bu baax voilà waaw da ngeen may déglu dama tontuwaale dama ne <laughs> yàlla lu tax njëkkul sàkk Awa mhm. génn ci aadama mais contraire de def dafa sàkk góor. pour génn ci aw awa. exactement. lu tax loolu lu tax wax kay bon question. parce que boobu yàlla namm na góor nekk protecteur u awa moo tax mu jiital ko ci àdduna. dëgg la boobu namm na mu bëgg ko. Mhm. boobu namm na assistance. maanaam li ñuy wax naan ku la njëkk ci néeg war la fu ñuy toog wala fan la làmp fan la kontagu làmp bi nekk. Mhm. loolu moo tax yàlla njëkk sàkk aadama. pour pour bu awa ñëwee fekk koo xam ne jiitu na ko fi mën koo protéger mën koo iir mën koo aar mën koo bëgg mën koo sagal mën koo sargal malheureusement avec l'influence occidentale waaw yéen a ngi perdre loolu yàlla da leen noppal nga ne ko yàlla doo ñu bëgguñu ko ñu noppal ñun dañu war a sonn exactement foofu la débat bi nekk tu comprends ce que je veux dire exactement mhm. loolu moo doon mission wu góor d'abord moo di yàlla dénk la koo xam ne yow yaa ko fi jiitu nga war ko aar war ko yiir war ko bëgg war ko yërëm war ko tette waa waaw bàyyi sama loxo bu ma bu ma jàpp dana lay bàyyi ku la wax ne soxla naa sa protection ñu xippi suñu bët di la xool ku la man maa la wax nga bëgg ma ma téye sama xol foofu la góor ñu tolloog jigéen ñi ah. mën a euh, euh, waaw waaw non c'est vrai <laughs> ñaari loxo takk sër ñaari loxoy takk tubéy d' accord nañ la leen war bu ngeen ko defoon duñ bàyyi d' accord nañ ñaari loxo mooy takk sër ñaari loxo mooy dëkk takk tubéy waaw ma bàyyi laaj sa ñaari loxo nga takk sa sër nga xam ngeen gis ñu am jox oui d' accord waaye li ñuul ci soow mi waaye li ñuul ci soow mi ba ngeen toog di ko waxtaanee assumer leen ko te ba ñu cee dugal parce que quand vous nous fet un faux procès vous ne réglerez jamais vos problèmes et pour pour parce que souvent. yàgg naa toog ci plateau ñuy wax violence faite aux femmes. ma ne leen tant que résoudre leen les violences faites aux femmes par femme femmes violence bi du mës a jigéen toog na fii nga toog. Mhm. ne Sénégal gii je parle peut-être euh, mi ngi may seetaan bi mhm. maa ngi koy nuy au passage. ne Sénégal gii lu fi naqari jigéen rek moroom jigéen a moo ko teg jigéen a ko wax de. Mhm. te duma ko sosol xanaa. Mm-hmm. n'est-ce pas. fii toog na fii wax ko fii. ah. ma ne moo ko fi waxoon kay. voilà jigéen ñëpp kulli ba di seen bët di ko xool. xam naa naan kii lan la kese waaw nee woon a nga ca diggante ba. maa ngi ñëw dinaa la joxe exemple yoo xam ne. dinaa la laaj yu si yoonu góor. Mm-hmm. donc moom moo toog fii wax ko. waaw xam nga dama njëkk a commencé. cër bi leen yàlla defal. Mm-hmm. pour être protégé pendant toute votre vie. tubaab bi ñëw ne la non nax. mën ngeen seen bopp mën ngeen defal seen bopp mën ngeen demal seen bopp mën ngeen am autonomie mën ngeen am crédit yi mën ngeen def ndàngam ah góor ñi croisé la bara di leen xool. tubaab daal moo ñaaw bàjjen. waaw tubaab da leen nax. tubaab moo ñaaw dana leen nax. ndax ndax jigéen jigéen xëy na këram. Mhm. daw dawal ba oto crevé. Mhm. mu gëstu ne ani man ba ma juddoog léegi musuma gis jigéen buy wekki pneu pneu oto. ah vous êtes a. dama ne musuma ko gis man laa ma xamal prospère. mais bu ñu wàccee ma kirikal la sama oto wàccee ko. gis. ba keroog ma la ba keroog mi ngay gis ngay kirik ah kay kon affaire bi beneen feneen la. donc. Mhm. moo tax ma wax loolu parce que tant que ñu ngi occulter mhm. les vraies raisons. jigéen euh, du du nekk mukk ci place mhm. ay jàmbaar lañ je dis oui. mais ci biir jàmbaarte boobu. Ah. waxante dëgg def ciy am. Mhm. yaa ngi dégg te yàlla rek a tax. Mhm. Euh, su ma yaay ji ndey faatu am na fu mu commencé foo xam ne li muy wax yëpp inventé wu ci dara. wax dëgg yàlla. te loolu mu wax it amul benn yoon bu ma déggee responsabilité góor bu ci nekk. parce que li tax ma bëgg leen dimbale mooy. quand tu as un problème ngay occulter les vraies doo trouver mukk solution pour tey problème mooy violence les violences faites aux femmes là mm-hmm. tu comprends ce que je veux dire mm-hmm. wax nga ko sànq mm-hmm. euh, soxna euh, man li wax na ko sànq bu àdduna doxee ba yàlla boole ñu jëkkër suñuy doom bi bokk bokk sant kon ñun jigéen solidarité moo ñu war ne serait-ce que pour notre progéniture comment tu peux imaginer euh, comment dirais-je euh, euh Obama ñaar ñuy wujjee am entente boo xam ne day jaaxal sa àdduna sa moroom bu jigéen ne la yow kañ nga dof wujj moom wujj rek la wujj wujj rek la lii ngay def ni mooy lan bu ne bu ne tisoo nga ne yaaram kàllaa bu xëyee suba togg jox la nga lekk bu bu la joxee dox nga naan bu defee nii nga def nii maanaam yàq ko togg gis naa ko sax ci benn série buy daw actuellement nii mm-hmm. mu di ko togg di ko togg di ko togg ba kooku jàppee moroomu jigéenam jàmbales boo xam ne war a dañuy dañuy dañuy safaanoo ba at keroog àdduna tukki tu comprends ce que je veux dire beneen bi ci topp mooy mm, dañu euh, maa koy wax sànq même solidarité féminine manquement yi ci am moo waral bi jigéen ñi demee ba namm sax jàppalante mm. pour mën a avancer mën a liggéey dañoo créer li ñuy wax tontine di ci jàpp néew na nga dégg góor bu bokk ci natt bu ñu waxante dëgg rek te yàlla tax natt jigéen ñi la boo ci jëlee dix tontine neuf yëpp tribunal la ñuy mujjee <laughs> maa la wax lii man lu waral loolu ah. mooy manque de solidarité bi faama njëkk naa teggi bañ na dootul nat ñàkk jom a ko jàpp tu comprends parce que moom bu jàppee ne dañu maa dajale dix millions jox ma man may may doxal tey maa nga Dubaay suba maa nga Maroc wala maa nga Turquie nday Fatou moo war a teggi moom it pour dox ci dox boobu. du tegati. Mhm. di daal di rasu. góorki ne la. waaw. lekk xaalis lu ci lu ci ci lu ci yoonu góor. boo déggee dix millions mooy jël cinq millions yi. billaay. tontu bu mujjee police. lu ci lu ci yo lu ci yo lu ci yoonu jëkkër. mooy def xaalis natt bi de. au contraire su lu dépassé wàññeeku.

deuxième point bi mooy man damay gis jigéen yàlla dimbale ko muy démarrer démarrer commerce mm-hmm. di dem di ñëw